Sénégal amul doom du sa sentir ni am na ministre de la jeunesse tu sens même par ça parce que sérieusement jeunes yi ñu ngi génn di dem c'est honteux pour le Sénégal moi je comprends même par l'importance de Pape Malick Ndour dans ce pays sérieusement mm -hmm. je l'importance parce que koo xam ne au lieu nga xool xëy ndaw yi defoo ko yaa ngi toog ci plateau di xas sa moroom bu jullit boo xam ne xamaloo ko dara ministre ji nga initiative bi mi ngay gis mu Pape Malick moom la j'ai des preuves Anita jigéen la de. <laughs> Anita Ani non Anita jigéen la dañuy def seen photo noonu Facebook jaar. Mhm. man mi tey ji jigéen laa mais mën naa def foto profil boo xam ni góor la alors ko man jigéen la sa vrai dire. Mhm. Anita TV moom nga gis Pape Malick Ndour moom la. gis nga avant ñuy génn avant appel avant ñuy génn ni am na trois millions et quelques am kii euh, parenage pam Malick Ndour def na ci kii Facebook am ni ñoom am na cinquante huit pour cent. ça colle très bien moo tax waa jooju génn noonu naan affaire sànn sàcc na élection yi bu yàgg sérieusement man du ko weddi du ma ko mës a wedd parce que loolu mën na nekk parce que chaque jour dañuy teg norme yoo xam dañuy wane ni Sénégal yi waaw bu ñu demee ba toll ci suñu nee gañe nan gañe na pas mal yu ñu je vois pas l'importance dans ce pays sérieusement gisuma importance bi concernant euh, Barthélémy Dias moom gis nga gor gor ko mën a sekkal am na ko génn léegi nii bu fekkee sonk dafa recevoir euh, kii Khalifa Sall ma bàyyi ko man côté boobu laa bokk. Mhm. gis nga jaaro nit ki da ngay gore ba xëy dee. Mhm. man d'accord naa nga nekk ci ay tolof tolof avant nga nekk ci ay tolof tolof Barthélémy di wax lu ko neex amul problème y a pas de souci mais ko quelqu'un koo xam dem na ba dugg prison. ñi ñi naan mi ngi ci duggante dund wala mu dee ba tey ti pic de yow nga joxe ay pic yoo xam ne on comprend même pas moi je comprends pas man man kii euh, Barthélémy Dia dama ko daan déglu dama ko bëggoon tellement mais léegi pour ma déglu Barthélémy sax problème la je me dis est-ce que Barthélémy bi moo nekkoon Barthélémy bi ma xam ba tey je vois pas parce que mhm. nit ki nit ki da ngay góore ba xëy même fekkee Sonko def na ay bêtises man Sonko moom laa àndal mais am na discours yoo xam ne génn na ko si gémmi na man d'accord ma ci parce que Sonko tey ji parfait woon ñun sax dañuy tiit ci moom parce que yeneen bi sax amul loolu mhm. kon Sonko il faut mu am def yoo xam ko koy reprocher c'est normal mhm. donte duñu dégg mais man faral naa na discours yoo xam ne def na ko man d'accord ma ci man nit mhm. ko lu ma la fara fara du ma la wax loo xam ne jaaduwul mais am na yoon yoo xam dafa rafetul ci Sénégal c'est Sénégal man man gisuma sa instant bi élection am na sentiruma ko vraiment mhm. pour te dire sentiruma ko konte contrairement Mimi Touré nag Mimi Touré xam nga lan la xam nga lan mooy problème bi instant bi la fait mu jege Ousmane Sonko moom la Macky Sall bëggul parce que Mimi Touré da leen a xam jusqu'à l'infini parce que fa la nekk 12 ans xam na leen xam na Macky Sall ni muy doxee xam na ñoom ñëpp ñu ngi doxee ku xam na say xam na say dossier kon tey ji bu jegee Ousmane Sonko mën na ni waa am na lu muy wax Ousmane Sonko loo xam ne peut-être du arranger Macky Sall quelque comme ça mais tampon bi démb am na fu ma ko seetaanee démb même def na kii entretien ak kii ak kii waaye Pape mu nekk wal fajj di seetaan naa ko kii mhm. dossier bi wane nan ko kii bi notification wane na tampon bu leer sax man mi doon seetaan imam sax dama ko zoom ni man lii lan moo lan mooy problème mhm. loolu lépp ay motif la loolu lépp ay motif la mais Sonko moom gis nga bu fekk yàlla dëgg rek lay àtte ma xam ne Sonko dina bokk ci élection rien n'est trop man ma uma confiance ba pour mu bokk mais man man yaakaar naa ne ëllëg même kuy falu moom dina ci dugal loxo. loolu laa amoon jaajëf merci beaucoup mbokk moom le ñu ngi koy daal di euh, jaajëfal bu baax a baax. 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 si numéro yooyu ngeen daal di woote su ko defee rek li ngeen daal di mën a def ni ñoom dugg wax seen xalaat ci ponk yi leen daal di indil Moussa Lamine maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax baax Moussa lakkale bi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal voilà euh, ponk yi ñuy waxtaanee jamono ji teg ab euh, logiciel bu bees ngir rek fexe ba ñu daal di may tëdd ku lu jëm ci doublon loolee nag ñu ngi ko daal di euh, ñu ngi ko daal di defal ñi nga xam xamante ni ñooy candidat yi bokk ci kujje politique bi voilà ñi nga xamante ni ay candidat lañ te fare ci kujje politique bi bokk yi tamit ci kuréel gi lee di F24 jamono ji nag loolu moo ko tax a jóg ndax doublon yi bokk na ci li nga xamante ni dafay yàq Euh, fiche yi moo tax ñoom instant bi ñi ngi cay def ay jéego beneen ponk bi ñuy waxtaanee bokk na ci Aminata Touré mi ñaawlu li nga xamante ni administration pénitentiaire bi def na ko na lekk euh, du daal di mën a gis Ousmane Sonko ginnaaw ba mu fa ànd ak Déthié Fall di xam ne ni daal 40 minutes après dañu ko daal di lànkal ngir mu daal di dugg gis ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko beneen ponk bi ñuy waxtaanee Barthélémy Dias yëkkati na ay kaddu jagleel ko Ousmane Sonko naam tudd turam nag Moussa Lamine na loolu mooy gaaruwaale waaye loolu la daal di ni kii di Ousmane Sonko ah, du bokk ci élection yi lépp lu mu mënta teg wala mu def ko Ousmane Sonko du bokk ci élection yi kàddu yooyu la Barthélémy Dias yëkkati te di xam ne ni daal eh, kii di eh, eh, Khalifa jamono ji mi ngi ci tànk bëgg seeti Ousmane Sonko waaye ma ngay daal di rek alerté ñi nga xamante ni ñooy partisan wu taxawu Sénégal que ni rek kii di Khalifa Babacar Sall nekk seen leader bis bu seetee jee Ousmane Sonko bu mu daal di bett kenn ponk yooyu la ñuy waxtaanee Pape ci Assemblée nationale ak coono fa dat dikkaat léegi-léegi bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay ziar bu baax jaara bu baax maam Bousso man la Baye Fall. ñu ngi lay nuyu yaa ngi ci jaam. waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah yow rek la ñuy déglu Baye Fall. waaw moom point yi comme Bart la ak euh, Pape euh, Malick Ndour. ak Mimi mhm. Touré ah. Mhm. waaw bon bu dee pour Bart moom. Mm-hmm. ndeysaan moom dama ko yërëm quoi c'est triste. Mm. parce que xam nga maam Bousso man lu tax may wax loolu. Mm-hmm. waaw man ñi xam Bart te dëkk euh, Sicap. man su ma koy woo duma ko woowee monsieur le maire du ma ko woowee Diaz man Bobo laa koy woowee. loo koy woowee. Bobo. man lañ ko doon woowee ba ñu nekkee booy waaw. bobo li muy signifié moom. bobo rek moom mooy surnom. Ah, ok d'accord xam bi ma dégg xam naa ni dina xam li ma wax. Hmm, kon kon yow xam nga baaxti bu baax a baax. waaw man xam naa ko bu baax. Hmm. waaw te sama xarit la. Hmm. te bon ku ku sénégalais yu bari tamit amoon yaakaar ci moom la woon man. mais il s'est une balle. ci tànk bi. Mm-hmm. dafa juum ko mm. waaw te boobu léegi nag mi ngi juum di tegale ay juumteem te moom xamu ko. <coughs> dellul ginnaaw daal. waaw. Mm-hmm. te mi ngi teg chaque jour ay juumte quoi. te mm-hmm. xamu ko gis nga jour bu mu njëkkee def affaire bi te gars di désabonné ci compte am. man ci laa bokkoon ci ñu amoon compte am et tout ça. Mm-hmm. mais dama ko dama ko yónnee message ba pare xamal ko ne yow da ngaa dóor sa bopp bal si sa tànk. te mm-hmm. xoolal fii léegi ñuy dem ñuy gën a dem rek di nga gën a xam li ma la wax. Mm-hmm. dafa juum. d'accord da nga jàpp ni le fait mu créer ay problème ci digganteem ak Ousmane Sonko. dina ko am lu mu koy gàllankoor ci poli euh, ci ci avenir politique si si si si dafa def affaire amateur dëgg quoi parce que xam nga ñun sénégalais il faut gars yi ñuy bàyyi di analyser ci ci mhm. affaire sentiment wala sa relation walla nit wala intérêt bi nga ci am non da ngay xool lu factuel mhm. mooy lu nit ki teg quoi nga wax ci loolu bul bul jéggi loolu mhm. parce que boo jéggee loolu da ngay juum mais Barth ci côté politique dafa juum te erreur politique ça se cash. Mm-hmm. te lii ma lay wax ni bu élection amoon suba nga xam. Mm-hmm. te loolu maam jaaro mi ngi suñu kanam. Mm-hmm. xam nga boo yoree jaasi di dóor muy dagg ak boo yoree mbar di dóor dafa wuute. Mm-hmm. parce que gis nga boo yoree jaasi foo dóor day dagg waaye mbar mooy loolu ñuy def ci biir jaasi yi pël yi loolu ñuy dugal ci biir jaasi mm-hmm. boo ko dugalee ci biir jaasi bi nag di dóor dara du dagg dëgg la moom dafa amoon jaasi di dóor muy dagg ndax taxawaayam mm-hmm. ak li mu doon nekk ci li nga xamante ne dafa nekkoon ci kanamu Sonko te loolu moom moo doon dëgg te sénégalais yi nga xamante ne dëgg loolu lañu ñu bëggoon lépp lool da leen neexoon moom mu yore jaas yi jaasi ko yore jaasi ñuy dóor muy dagg boroom xol yu set yëpp ànd ci parce que ñoo bokkoon luñ doon xeex. dëgg la. moom mu dem ba ci biir jël jaaseem dugal ci mbar. Mhm. di dóor moo tax instant bi lu mu dóor du dagg. Mhm. Pape Malick Ndour moom. xam nga tubaab dafa ne rien n'est plus dangereux qu'un ignorant en action mooy nit ku xamul dara di telli telli ak di felli felli ay njaxum rek ngay def mais nag gouvernement sénégalais ak Macky ñoom ñooy responsable te ñooñ noonu li leen di mi ngi ci seen kanam parce que ils ont fait trop d'erreurs ils ont fait trop de mal te yàlla am na yoo xamante ne du ko seetaan moo tax loolu mi ngi suñu kanam Mimi Touré nag man lu ma mën a wax ci moom moom c'est une grande dame loolu na ko sénégalais di ko sóoraale man patriote laa de pur et dur pare na naa jël sama cinquante euro teg ci bu ñu woote waatee nii Basiru nii damay jëraat sama xaalis def ci parce que loolu laa mën a xeexee actuellement mais Mimi Touré na ko sénégalais ak patriotes yi bàyyi xel c'est une grande dame na demaat wuuti nu mu tudd waay euh, permission bu waa ji di tamponné mi ne ko bësal ba mu baax ba lépp leer nga jox ma sama këyit mu dem déposé waat gi Sonko parce que moom giseem ak Sonko ak ëllëg luy am ñoom ñaar mën nañ ci jouer te Sénégal moo ciy profité moom nii ngay gis ni Mimi Touré nii def na ay attaque at ci mim ci Macky Sall dëgg du dëgg jaara bu ñu amoon onze ci moom dañ koy sifaay amuñu dara ci moom te intellectuel la te intègre na Sénégal nag ñu mel noonu la ñu soxla mm-hmm. na gars focus démb xam nga maa ngi la koy wax ba ma wootee na gars am taxawaay mm-hmm. gis nga genre slogan bi Obama génne woon États-Unis mm-hmm. ñëpp yaakaar ni nit ku ñuul warul diriger ñoom instant bi yàlla indil nañu julit piir te Sonko man soxna si xam nga Sonko kañ laa commencé ànd ak moom bés bu ma toogee sama Facebook nii ma déglu mu wax waxam ak sama nopp mi ne man musuma jël alalu kenn quinze ans liggéey naa ko impo musuma lekk dërëm mu kenn ku ko xam na ko wax man loolu sama yaram dafa daw parce que as gor gor rek nga mën a nekk ah. i kii lu de mais ba ma demee ba mu xamante ni kii lu mu wax nii dëgg la dama ci ŋoy te kenn duma ci génne barke maam see Faal bi ma yaakaar sénégalais yi nañu taxaw yàlla indil nañu jullit piir murit saadix parce que jébbalu na am na sëriñam te ku xool sëriñam xamante ni kii Sëñ Tuubaa xeebu ko de kon na sénégalais yi am taxawaay man loolu laay wax démb am démb la naan du xeex du xuloo du sànni du mais xoolal na gars yi am taxawaay bu ci war parce que Macky Sall moom day dema ah. par A ou par B day dem te trimën su moo ko fi dese trois mois na sénégalais yi xam nañ te ni xam yàlla moo ñu ubbil bunt soxna si man Europe bii ma nekk nii dëkk bii ma nekk nii Belgique bii ma nekk nii Sénégal ñoom ñoo leen ëpp morning fuuf fuuf ba mën leen may te fii ku liggéeyul gàtt ga gàtt lu mu minimum di nga am benn six cent et cinquante mille francs CFA par weer boo liggéeyul dafoo dara yaa fuus buggoo dara buggoo liggéey buggoo dara. parrainage yi ndax loolee bokk na ci li yàq seen ay fiche bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo aleykum salaam oui ñu lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi lay bégee. delloo bégee. tur bi fan la mais léegi la léegi ñu lay ziar bu baax a baax Moussa Lemine Junior. Moussa Lemine yaa ngi ci jàmm. waaw waaw ndeysaan xool bi waaw maa ngi sant bu baax su ma su may tudd ay mu sell mi ay Sonko sama xol mu sell mi ñu lay ziar mu sell mi ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax di la wax dalal euh, dalal ak jàmm yow rek la ñuy déglu yaay ku sell ki. barki alxuraan mu sell mi junior. mu sell mi junior di lay ziar di la jaajëfal. acca ñu ñu ñu ñu dem ci ponk yi ban jàngat la ci am. bon euh, kii Barthélémy Dias comédien la man xama man xama man dama ko bàyyi suivre man man gars yi mu doon bëggee la mais man si trahison yi mu yu ma mës a dund sama àdduna yëpp Barthélémy Dias mooy number one quoi kooku comédien la donc mhm. kooku noonu jarul naw loolu quoi jarul naw loolu Barthélémy Dias bon jàngul jongul amul amul nga xam-xam kon kon lu ne si benn politicien di jaay grand yu rabe di génne yu pistolet di jaay affaire affaire yooyu noonu kooku jarul naw naw quoi il a pas de compétence c'est un idiot quoi donc moom moom franchement lu mu mën di wax nu dugg gauche génnee droite quoi si noppi yi jarul sax ñuy attardé waa franchement c'est c'est un raté de la vie quoi parce soo ko képp ku koy xas wala di ko wax bon yow raté nga quoi yow sa àdduna jëriñul dara tu mérites bien tu tu vaux rien la société yow yow dara quoi su ngoo képp ku ko bañ war ngay wax su ma mu bon yow bu góor dara saa bon parce que ku bon nga ku soxor nga parce que gars mu mujjee wax ni mooy lépp ku toog ne man mosuma lekk sa un franc yow kooku da ko war a respecté di ko màggal di ko saabal kooku mhm. ma koy wooye mu sell mi l'unique le plus grand le meilleur soo ko waay soo ko mooy gor ak alxuraanu karim yëkkatil voix bi tuuti yëkkatil voix bi tuuti ndax déggante bi neex. Ah, dama ne Sonko képp ku ko bañ naa ah, nitu safara nga. parce que ah, mhm. Sonko waroo kaa bañ. Sonko waroo kaa bañ. mérite respect sooy wax si moom lu bon sa bopp ngay yàqal mu ngi ni bale média saful xorom saful suukar kenn lijjanti wu ko. donc moom na toog di continuer di wax lu muy wax di yàq dara c'est son problème waaw loolu laa moom loolu laa moom la ma wax si parle média beneen ponk mi mooy Mimi Touré Mimi Touré tamit bu ñu fontoo quoi Mimi Touré mënoo fi toog minuit trente xaw ma nga toog RTS wax fii say waxu doog génne fay chiffre. Mm-hmm. amul fenn. tu viens du jour au lendemain parce que amoo benn poste bi nga garanti assemblée nationale tu viens tu nous amènes comme ça quoi di ñu sonal ay waxu xaw ma Sonko di jéem accroché wu xaw ma peut-être elle clean mais man elle est pas clean pour moi à travers ses actes parce que moom moo fi doon toog ànd a Macky Sall ñuy rey gars yi yëpp fii la ko fii nañu fekk lépp fii nañu fekk donc mënul ñëw di jour au lendemain bëgg a boppam quoi donc man moom kooku sax nawloomu man kenn laa fi nawloo si politicien yi ma ne Ousmane Sonko mu sellan le président Ousmane Sonko à Colobane avec les marchands ambulants le président Ousmane Sonko man kooku laa nawloo si temps bi ak Guy Marius Sagna peut-être parce que Guy Marius Sagna bu ñuy toj biitu Sonko moom moo ñëw xool lënk ko ko bàyyi ñaari góor yàlla yi. Jomaay nag si temps bi nii bii laay wax bañ. tànneefu Sonko nag Jomaay moom loo wax ci moom. ñoo ñëpp non parce que Sonko moo ko tànn man kooku je l'admire mais man hmm. man man man man man su ma su ma doon tànn fii ñu ma gën a wóol sama àdduna bi Sénégal ah. man Guy Marius Sagna ak Ousmane Sonko mu sell waaw le baobab Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna xoolal depuis sept ans ou ñu koy gis ci terrain mhm. tout le temps tëj nañ ko fi gaañ nañ ko fi dóor nañ ko fi ñoo ñoo gëm réew mi ma ñaa ñooñu laa gëm ñoo gëm réew mi ay jooma jooma moom leen dara et je les parce que soo ko bëgg na leen soo ko ku leen soo ko ku mu man bëgg naa ko soo ko bu ma ñoo bëggee bu bëggee kaña ni ma kaña bëgg la ma bëgg kaña bi da koy jox lekk chaque jour ma koy dem ci biir soo Sonko moo fi ne Sonko ne nawloo Sonko mu ñu bëgg génnee si buum jàmm ñu nekk ay ay matu safara ay madamal jaay ay nit yu ñuul noiroo bëgg ñëw fii di saltel yàq ay jub safara ay système toog ñuy dox ay paa yoo xam ni liggéey ñu toru ñu yettuñu bëgg ñëw yàqal suñu last suñu last chance bi ñuy quoi Sonko nga xam ne il est admiré par tous les Africains qui veulent la liberté yow nga ne loolu waru mën a am quoi dëgg bëgg a nekk si bu mu jaam bëggoo sa situation changé bëggoo courant bi ngay yokk nii courant bi ngay fay bañ kaa fay suuf bu ñëw nii courant duñ ko fay dara duñ ko fay comme lii bi ñuy dundee parce que on a tous les ressources mais malheureusement y a des vieux yoo xam ne ay paate ay mbay peex kee naan sëriñ ma ah dëgg dëgg dëgg golo gololu si télé bi di ànd rajo bi ñu nax en complicité avec des marabout yoo xam ne ñoo toog comme le vieux là comme le mais est-ce que nga xam ne Aliouma joxe ah c'est triste. mais loolu dafa war a jeex système bi moo. vrai jaay preg ga. donc ni gars yi sama gars yi sama gars yi dañu focus focus quoi. d'accord surtout ñu ay bande bi jaas comédien yooyu noonu la ñuy wax focus deux mille vingt quatre bu jëree wàcc ñu wàcc bu jëree ay élection ay élection man sa góoma élection dana am li ma yaa ko wax. d'accord donc nañ mobilisation focus nañ bàyyi divertissement yi. Barthélémy Dias comédien la daf leen sànnil gerte pour ngeen ñëw wax si pour ngeen ñëw lekk. jaajëf merci beaucoup seen bopp ay pigeon aussi. waaw merci beaucoup jaajëf ku sell ki ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax 88 628. 73 308 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen daal di mën a dugg wax seen xalaat ngeen aimé partager live bi s'il vous na kër yi na live bi euh, tasaaroo na ñi ñi jot seen notification ñoo ànd ak ñun ci waxtaan bi voilà euh, su ko defee rek euh, ngeen daal di jaar ci numéro yooyu di ngeen daal di mën a bokk ci waxtaan bi bu fekkee am na keneen ku dekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jëfal bu baax a baax. na jaaga. Mm-hmm, yaa ngi ci jàmm nañ leen bu baax a baax. tur bi ak fay wootee alhamdulilah. Mm-hmm. man laa ràq gu génn ki léegi fanatique numéro 3. fanatique numéro 3 d' accord ñu ngi lay jaajëfal. <laughs> waa mais mais mais si fanatisme damaa bëgg ñu am si benn benn limite kat ndax même ñun islam bi ñuy bàkkoo nit ki am am na yenn saxaaba yu gën a jege woon yenent bi waaw ah, tuub nañu nangul leen ko sama xel. xaw na dal tuuti si mu Touré mm-hmm. ndax fu mu nekk nii tamit gars yi moom ñoom ku ñu xaw a xeex rek nga xam ni sax am na lu xaw a te moom it am na lu bëri loo xam te ne na kase apporter ndax xam na leen bu baax a baax mm-hmm. mais dama bëgg a jëli fu am na benn waay bu nekkoon Europe bu woote mm-hmm. sànq génn wax na fi wax bu am solo xam nga nit ñi bon ñun Sénégal la ñuy toog naa non lii ñii gaa yi sañu ñu ko xam nga li ñuy wax du dëgg ñoom booy xool opinion ñu ngi préparé seen bopp si guerre communication bi ñooñu si raw fuuf opinion internationale bi ñoom ñu ngi leen di yëgal loo xam ni contraire bi la te ñoom ñu ngi gëmm di dóor kat élection yi gars naa non fii kenn election kenn mënu ko fee sàcc maa ngi doon wax ba léegi il y a quatre mois liste électorale yi ba léegi gars yi njuuj njaaj ñu si def kenn xamul lu mu toll gars yi buñ toog di xaar nii ret ñu ngi préparé itam di gaboniser dëkk bi maanaam si wu béy ma bàyyi leen ko yéen journaliste yi am général Moussa Fall bu mu juumul côté septembre bi ñëwoon na France am na benn bon am na ku mu di disanteeg tubaab yi ba ñu jógee foofu tijji nañ benn brigade mbuur waaw kon tu leen na gars yi bu ñu sàttee élection yi tamit bu dëkk bi nanga am nu muy demee waa seen nit ñi ñooy jëlaat pouvoir bi nekk si biir armée bi journaliste nañu vérifier encore affaire boobu noonu bu baax a baax. Hmm? loolu weer laa mu doon wax wax gars yi léegi nañ jug ñun ay Barthélémy Dias ñun xam nañu xam nañ xam nañ déjà gars yi nu ñu taxawoo kon bëgguma sax di si wax waaw nañ nañ taxaw wet tijji suñu gët yi itam. Hmm. ñu ngi jégalu bu baax a baax jërëjëf. d'accord d'accord jaajëf

ngeen daal di mën a dugg wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaanee comme ni ma ko xewoon sànq li ñuy waxtaanee bokk na ci Aminata Touré mu bëggoon euh, dem seeti Ousmane Sonko administration pénitentiaire bi bañal ko ko ne tampon bi leerul beneen ponk bi ñuy waxtaanee Pape Malick Ndour assemblée nationale ñi ki démb daj na fa dëgg ginnaaw kujje politique ba mayee ñu ko dara waaye ndaw yam fa àndaloon ci assemblée nationale bi aussi gis nañ taxawaay bi nga xamante euh, euh, a ba ki nga xamante ni sax moo nekk ci cabinet moom mujjee génne xaalis ngir jox ko ndaw ñooñu nga xamante ni teewoon nañu fa te ñu ne ay ndawu APR lañ maanaam ay APRiste lañu woon beneen ponk bi ñuy waxtaanee bokk na ci F24 teg benn logiciel ngir rek fexe ba ñi nga xamante ni ñoo fexe ci kujje politique bi waaye bokk ci kuréel gi di F24 ñu fexe nañuy may toolu jëm ci doublon yi ci parrainage bi ndax bokk na li yàq fiche yi jamono ji ñu nga ca ñu nga cay def ay jéego ngir rek euh, ñu daal di gën a may maytu loolu beneen ponk bi ñuy waxtaanee bokk na ci voilà wala ñeenti ponk yooyu la <laughs> mi ngi noonu bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ñu bi ñu jël ko salaamaaleykum. <laughs> yaago ñu baax a Xaadim ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal bu baax a baax. waaye yaay sama yaay yaay sama maam maam Diallo Moussa mën naa la. dëgg la <laughs> loolu moom leer na. Euh, Khadim Gueye bu 2A TV ñu ngi lay nuyu di la di wax ni am nañ mbégte déggaat la. waaw maa ngi gën a am mbégte vraiment di leen saxoo saa su nekk nag di fajal a baax sama cofeel si yéen. jaajëf merci beaucoup. di la di la ñaan taw fexe tey siir. amiin yaa rabbi amiin amiin mhm. comme d'habitude rek maa ngi nuyu waa 2A yëpp nuyu aussi mbokk internet yi yëpp. Mhm. ziar ñëpp tamit. ñu lay fay. waaw soxna maam Diarra émission bi tey am maanaam si bàtt la mi daal laay njëkkee. Mm-hmm. Ah, que man tey daf maa bett man tey damaa def na dégg na carrément fu ñu jaarale woon Karim Wade jaare fa Khalifa Sall tey xeex nañ ba kenn jaarale fa Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais mais pa amul pa amul dikk naa fu fu ñu jaarale Khalifa Sall jaarale kon moom toog na xam ne du bokk dugg na fi génn fële kon da ngay wane carrément kon ñoom seen ànd seen ànd nekkoon si dëgg. Mm-hmm. tey puis maam jaay Sénégal fu toll maanaam ya yàlla def na nekkoo koo xam ne maanaam ñaar dong mooy mooy mën a tax li nga am ko muy lan xeex wala ko waxta ak moom. waxtaan ak kan. si moom. Mm-hmm. faaw moom wala nga xeex moom ba mm-hmm. am waaw. parce que fekkee de projet moom projet moom lu ma xamal dëgg kenn kenn mënu ko fee gagné mënta ne parce que moom moom mooy tax ñu koy arbitre moo tax ñu koy supporté hmm. te te te gis nga réew man man réew maanaam musta mënta avancé mu te kenn du jëlag daa xool fiche électorale yi ba tey kenn la kenn xamagul ñaata a kenn am Sénégal lépp xam ne carrément tant personne ñoo bindu tant personne ñoo war a woote. Mhm. mais est-ce que ñoo xam est moo fi des te ba tey fiche bi benn opposant bi gisagu ko kenn xam nga du fi nekk. Mhm. lu gaa yi wax naan da koy sàcc ba loolu bu ko bu kenn weddi yow yow yow dëkk boo xam ne maanaam deux mille personnes ñoo fa nekk nga ne am na quatre mille électeurs loolu mën naa ne. Hmm, doy na ah, <laughs> moo tax maam Diallo Sénégal fi ñu wax il faut que gaa yi toog dialogue mën ta ñàkk. moo tax Macky Sall génn si bi teg si kaw table candidat yëpp gis ko xam ne carrément temps électé lañ am temps ñoo war a woote. Mhm. dafa nekk temps pour ñoo fa nekk. Mhm. mais le yow a xam ni mu demee bu doxee nga bu doxee nga ne Fouta am na deux mille personnes bu fekkee daa ne cinquante mille électeurs ñoo fa xanaa ko boobu ba yéeg woote. Hmm? day na waat. dafa loxo dafa am quoi maa ngi déglu baax a baax na ko Ousmane Sonko vraiment nit ku ma bëgg la nit ku ma fonk la mais dafa am benn erreur bu mu def pour man. erreur bu mu def bu mu def fu mel noonu la ñàkk toog dialogue ak Macky Sall loolu loolu dafa nekkul yoon xam nga la moo tax mu nekkul yoon. Mhm. allo. oui ñu ngi lay dégg Khadim yow rek la ñuy déglu. yow benn jàpp nga ñoo xam ne si si man lan bokk jàpp nga sama njaboot woo nga pour ñu waxtaan dama ne waxtaan bu ñu li ma nekk wax mooy vraiment ma wax mooy sama yi nga bàyyi nga jàpp nañ leen bàyyi waaw xoolal temps corona bi ba mu wootee di la Ousmane Sonko dafa dem. te ba mu demee dafa wax dëgg bu te lu mu wax ñëpp ñëpp si am mbégte ñëpp si am mbégte waaw mais Barthélemy Dias moom mooy loolu quoi ma ma ñëw si Mimi Touré Mimi Mimi Touré moom maanaam mënuñu wax dal ko waaw parce que mënoo mënoo nekk que def fa li fa nekk yëpp nga xam ko deux ans après nga génn naan dugg na fi génn na fële c'est que Sénégal Sénégal maanaam dafa nekk déw doo xam wax leen gërëma ñu jëf Sénégal bu a pare da nga carrément kii moom bu mu wax lépp mu day mais même bu jëf taxee doo gis kenn bu ñu taxawee doo gis kenn te pour Sénégal wul cinquante pour cent électeurs yi nga xam dañuy woote doo gis kenn manifesté wu cinquante pour cent électeurs yi nga maanaam di di woote dañuy sangu ba set dem liggéey jour élection ñu sangu ba set dem woote ñu toog toog seen toog seen kër jàpp seen ñàmbur waaw mhm. mais wax ju bëri maanaam foofu li mu wax Sénégal ñaar moo ko a moo kat xeex ba dugg ba boîte vacante ak Macky Sall loolu kese koy defar waaw bu dul loolu maanaam mooy loolu daal déedéet waa daal. est-ce que est-ce que li xew nii bi tamit doon na jariñ dara. ah mais bien sûr maam Diarra wuyu ma waxtaan waxtaan nekk na benn yoon ñaar yoon mooy tax mu ja mu sotti mais Abdoulaye Wade ak ak Abdou waxtaan mais Abdou Diouf Abdou Diouf ba mu def na carrément lii ngeen wax du ma fa andi virgule ba pare daal jàkk jàkk a nodd moo ñëw nga nodd ko jëloo ko jëloo dañoo waxtaan waxtaan waxtaan fa dara nëbb mu accepté Macky Sall waxtaan naa waxtaan naa benn waxtaan ñaar nga bañ fii taayoo du taay mais heure boo waxtaan dinaa di waxtaan ak yow lépp maa fa ko waaw mais réew maam Ndiaye wax réew xooy réew mënut a développé sans li ñu waxtaan loolu mënut a c'est impossible waaw. d'accord réew waxtaan moo koy defar waaw. Mhm. Mhm. loolu quoi mais maa maa maa ngi jégalu baal di ziar ñëpp. te maa xaw a sonn quoi <laughs> ñu ngi lay euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax bu baax a baax Khadim Gueye bu 2A TV 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen daal di euh, mën a dugg wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaane continuer.